dañu ñu laa jàppale mais na ngay jógoon jóg nga wax ñu li nga bëgg soit léegi ñu woo sa jabar mu xam li ngay def parce que yow sa bopp jàllu xam na nga ne lii nga def nii ñaaw na doy na waar ah munoon nekk ay xale yu ndaw ah di leen proposer yu mel nii bàyyi sa jabar si kër ga dafa ñaaw ñun nag mixta nag loolu la ñu bëgg mu dagg nañaa bëgg kuy defatu lu bon na nga dem feneen nga def ko fa budul mixta sinon bu ñu woowul sa jabar nga dem police parce que yii il faut que ça fu mu nekk ni peser ngeen bu baax li ngeen def hmm? xam ngeen bu baax li ngeen def gravité bi gis nañu gis nañu message yëpp yi nekkoon si WhatsApp bi te message yëpp

def li nga xam ne nii comme li ngeen waxante si whatsapp bi loolu ñaaw na lan moo leen dugal fii mel nii ah. xam ne ah? Ah, yaa du xam nga ndeyaa. ndeyaa foo xamee foo xamee ndeyaa yéen bokk école. waaw foo xamee. mais bii di leen rek xam sama su na ngeen di ànd. non ànd yi genre dafa ne moom fii la dëkk si biir saa. léegi yow jour ban ko convoqué. waaw. ak beneen copine am bi. waaw ba confisqué téléphone am. waaw ñu woo ma. Uh-huh. yaa ngi dégg. Uh-huh. ñu ne ma foo nekk dañoo am plaignant sama gaale suñu gaale fii. Uh-huh. est que mën nañoo ñëw man leen non sama gaale sama mère plaignant la. loolu après bañ ma déggee sa tur ñu di ko prononcé. ci laa xamee ni yow la. maanaam yaa confisqué woon téléphone bi beneen copine am bi. ok waaw. mais est yoo xam ne ndeyaal lu mu doon lu mu doon def. non ndeyaal non moom genre dafa ne woon ma. moom day am xaalis. man mhm. ko te nekkul seen kër man ko am ah, ma waa man kon baax na après asu élève la moom day jàng. Mhm. asu moom mooy sama ma xam ndeya. mais asu wax na leen ndeya lu mi du mu doon def. waaw. ndeya waxu leen nekk da da doon. ndeya moom. ndeya ndeya. benn grande prostituée ba nga. bu ñu la yóbboo police déferment bu gara gaaw ngay defeere parce que li nga def nii. xaw ma acte pédophile laa ko mën a tuddee xaw ma lan laa mën a tuddee c'est grave li nga def nii xam nga kilifa bu toll ni yow gaare sa oto bàyyi sa jabar si biir kër ga ah loolu dafa graw ñun ay jullit lañu ay xol la ñu yor yoruñu on n'a pas des cœurs de pierre mais tamit nit ki aussi boo defee yenn aussi il faut il faut il faut pouvoir s'assumer quoi xoolal kii yaayam mi ngi ni toog na nga yaakaar ne li ngay jooy ni dugg na ko elle est insensible à Tu n'as pas pensé à ces, à ces gosses-là, tu n'as pas pensé à ça qu'on se dise la vérité. Hein? tu choisis parce qu'on ne peut pas te laisser partir comme ça. Non, nous ne pas ce cas à ses portables, mais là, on ne peut pas. Maintenant, c'est que nous nous régler le problème ici. Sinon, on t'embarque à la police de Bob Moïgana Tigraou. Diallo. Nous ne pouvons pas C'est pas possible. ah waaw d'accord mais waxal li nga si choisir c'est que yow kon yow fu mu nekk nii xam nga ne boo demee police tam sa jabar dina sëy boo demee police tam sa jabar dina sëy te yëg bi boobu mooy gën a garaaw te boobaa say mbokk ñëpp koy yëg parce que boobaa tu iras en prison boobaa ñëpp a koy yëg mais lii mun na des ak yow. Eh, si Diallo mën nga ñu jox sa numéro jabar Diallo mën nga ñu jox euh, sa numéro jabar soo bëggee ñu régler problème bi. choisir si benn ñu woo sa jabar mu ñëw léegi wala ñu dem police.

Mhm. C'est la des chef de quartier bi ñu dem pour ñu dem feug ki bi mu tej leen ci douche né Nous ak jabaram ño fa ñu ubi eh, gis fa consulté sen téléphone Nous ci gis ay messages dire ay message obscène yu yuñ doon def ak interlocuteur interlocuteur bi proposer une valeur de 000 Nous avons koy tête pour une passe ak ay vidéo madame euh, Giro chef de quartier mixta affaire yi naka la demee. non man euh, ay une heure une heure sept la ma superviseur bi wo ne y' a quelque chose de louche qui se passe dans dans un appartement meublé. bañu mu ba ñu and on a tapé à la porte donc il a hésité à ouvrir mais on l'a sommé d'ouvrir buntu bi buntu bi donc euh, ñun on est on est entré parce que xamoon nañ ne xale yaa ngi si biir. Mhm. ñu dem ci douche bi on a trouvé les filles xalé ndaw. Hmm? donc ñu réquisitionnons réquisitionné leen indi leen fii donc on a trouvé si un message WhatsApp des propositions obscènes ya nga euh, donc du n'importe quoi ay vidéo yo xamné ni xalé yi def nañ ko là on a appelé euh, Ken ki sa maman est là yayam elle est vraiment désolée sidérée fu amul lu ko ban qualificatif laa mën donc xalé yi daal ñu donc le monsieur mingi ni mom il pense à son épouse bi ko nar a yëg xalaatul yi mu narona yak parce que ñun dañaa intervenir illico presto presto donc si instant il est ñëw nañaa dugg rek quelques minutes après rek ñu ñu daal di egsi donc heureusement que jotul sax eggat xale yi. Mhm. donc euh, c' est ça qui s' est passé donc lii moo tax nit ñi nañ xam ne que ñun mixta ñi ngi liggéey. Mhm. à cette heure là il est pratiquement 4 euh, heures moins ñi ngi ni si si si si cité bi. yii lañ fi bañ na nit ñi toog seen kër bàyyi mixta lu ñu bëgg a def lu ñaaw ne mixta non. Mhm. ça c' est fini ça ça c' est fini à partir de maintenant c' est fini. léegi le dëkk bi ku fi am sa gel mixta. non léegi ñi ngi ragal ñi ngi bàyyi mixta parce que léegi ñun toogatuñu nelawatuñu on est sur le terrain matin midi et soir heure les résidents ñu ngi parce que ont avons sentir mouvement si à si immeuble on intervient de de de suite et puis la police est là pour nous épauler donc mixta il y a les gens n'ont qu'à se méfier les ñëw di def yu bon mixta. ñaari yi ñaari yi yow yow yow yow ak non man ak mhm. pour mais biñ ñëwé après Kër Massar ba Mixta. waaw lutax ngeen taamu Mixta. ñu dañ ñëwoon pour fête baña déranger kenn kenn duñ déranger. Hmm. parce que bañ na ko ba man signé contrat ak sama carte d'identité. contrat la. contrat immeuble maa ko signé. Hmm. pour bañ rek ciow ak leneen. Hmm. pas dérangement kenn. soirée mo leen indi won non fête ni tok lek waxtaan xam nga mo ñu indi won waaw mais li xew ni ñun yëguñu won li dina xam. dina xew parce que ñoom waxuñu mo won ñoom dañuy dajé góor fofu mais bi ñu génnee ma maa ngi gis ñu dugg si oto mais boutique lañ ma waxoon. Mhm. après si la louche man ma toog tëdd jékki-jékki si la madame bi woote. ak sa